maa ngi sant di gërëm waa Mbacké en tout cas defal nañ ma euh, une surprise une surprise très agréable euh, musuma woon toog di xalaat ne euh, nii lañ ma en tout cas bëgg tey defal na ma loo xam ne duma commencé duma commencé fàtte dina tax fu ma mënta dem lu may def dinaa xalaat population Mbacké parce que tamit buñ ma defalee lii c'est pour au moins Euh, ma continuer di leen lu ma mënta def dinaa góorgóorlu di leen xalaatal di leen xalaatal par rapport à ce qu'ils ont fait ici vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant. normalement population moo mën a apprécier liggéey bu ñu fi def mais ñun à notre niveau aussi mën nañu si def appréciation ndaw première appréciation mooy bu may ñëw fii euh, trois ans tey. def un résultat un ce qu'on une saisie record boo xam ne commissariat ba bu mu amee ba léegi mosu fi am am naa fi cinquante trois kilogrammes de chanvre indien te boo ba léegi presque pour nga am ko diggante Touba Mbacké c'est quasi impossible tax na résultat boobu tax na ba ñoom ñiy jaay sax dañoo changé stratégie léegi ñemeetuñu jaay lu bëri dul ay quantité ndaw la ñuy yeb si moto di ko jaay c'est vrai que drogue mu ngi fii mais nous pensons que def nañu au moins waaw dellu na gannaaw baax bilan bi peut-être je reviens encore amoon na jamono boo xamee ne am daan na ay braquage à main armée directeur sécurité publique déplacé wu Dakar ba fii ba lancé fii benn opération sàmm suñu karange opération boobu buñ ko tàmbalee ba léegi tax vraiment euh, depuis le mois de janvier ba tey amuñu benn braquage euh, à main armée loolu li ko waral mooy seen présence physique sur le terrain dem nañu ba occuper terrain bi vingt quatre sur vingt quatre xëy na yaakaar naa loolu moo waral vraiment violence boobu wàññeeku euh, année deux mille dix neuf deux mille vingt particularité mooy lutte contre la Covid dix neuf euh, mën nañu ne bokk nañu ñi tax ba jàngoro bi wàññeeku bu baax a baax Mbacké amoon na jamono boo xam ne épicentre Touba. mais depuis ministre de l'Intérieur bu mu jëlee arrêté obligeant le port du masque ñu ko appliqué euh, je peux dire que depuis boobu la feebar bi dakk Mbacké commune Mbacké malgré le rapprochement entre Touba Mbacké mairie moom euh, maa ngi leen di sant bu baax a baax euh, di jaarale sant bi si Abdou Mbacké Ndaw le maire de Mbacké en dehors de la mairie mais moom il entretenait ay relations yu particulières ak man maire lu mu defal commissariat Mbacke xaw ma ndax daan nañ ko def mais euh, lu rëy la fu mu nekk nii climatisation yi nekk si commissariat bi la moom presque moom moo ko def foofu tabax réhabilité réhabilité na euh, comment on appelle sa le logement de l'adjoint moom moo ko réhabilité logement boo xam ne bu ñu koy réhabilité personne ne pensait que c'est possible ça sa réhabilitation parce que dafa nekkoon développement très avancé mais mu dugal fa xaalis liggéey ko liggéey boo xam ne fu mu nekk ni bu ñu amee ay gan ay renfort foofu la leen dalal donc maa ngi leen di sant sant leen gërëm di leen xamal ne d'ailleurs il ñoom xam nañu ko xam nañu maire bi xam naa ni xam nañu police bi ñoo ko moom kon ñu continuer di jàppale police